a sóobu nag gën na rek nag. leeral rek xew-xew yoo xam ne am na fa ci ginnaaw bu boo xamee ni defoon nañ reportage boobu ak RFI ba ñu gis ni kër làbbe bi dañ koo tëj biñ ko tëjee nag moom mu laaj waa dëkk bi li sabab tëj gi waa dëkk bi ni ko jinne yi ñoo fi dàqe tubaab yi léegi nag ginnaaw bi nag. man ma dellu si fi ci ab diir fekk te benn société bu ñu wax ENEFO dañuy dagg dénk ci àllu Gabon ñoom ñoo jël barab ba baaje ko ci labbe yi vingt ñu luye leen ko ngir ñu di fa teg seen seeni seen dénk léegi loolu bi mu amee nag maanaam ñoom bi ñu ko waxee waa dëkk bi te waa dëkk bi fekkoon na jinne yi feeñu leen fa ba rey labbe ba leen doon meesal ñoom nag ci loolu ci lañ ne kenn ñi mu fa doon gardien ñu ñu annoncé ko Libreville ñu andil leen waa ji ñuy wax Moussa ab awsa la boo xam Niger la dëkk awsa boobu nag bi mu ñëwee ci barabu sëñ bi Mayomba dëkk ba ak il bi sëñ Touba woon benn bag moo fay daw bag bi nag bu 6 heures jotee day wàcc ndax mairie bee ko moom ba ëllëgati ca 6 heures ci lay ci lay tàmbaliwaat léegi nag moom musaa bi ko tubaab bi indee ci barab bi sëñ Touba woon ci kër labbe bi ubbil koy néeg tegal ko ay bagaasam tubaab yi ñoom ca hôtel ba lañ nar a fanaani moom lañ fi nar a bàyyi mu fanaan fi moom nag waa réew mi doon daw di dabu ji ba bag ba ci bi 6 heures di jub si kenn seen ko fa gis ko mu sol yére yu mel ni suñu yére yi mu taxaw ni ko yow xanaa xamoon ni bag baa ngi dem ngay toog fii boo fi toogee jinne dañ lay rey de moom nag xamul li ko waa ji di wax. bi ko waa ji ñëwee ba jege si nag ba leeral ko mbir mi moom mu am na jafe-jafe ndax tubaab bi ñoo ko fi indi ca ci hélico lañ ko indee foofa wàcce ko ca barab ba xamul dëkk ba kon moom bu demee ca dëkk ba du am fu mu dal. ta su fi baye fi bagage tuba bi tamit man na am jafé jafé mune na tak sama fit fanan fi rek genn goudi suma fanané buma xeyé suma déwut bu tuba bi ñëma ma leen seen bagage mom Moussa nak bam mu ba goudi ci la ko sëñ tuba feño ni ko yow fi man nga fee ñi fi ne jottu ñok yow dara. tax Bamba yaay suñ confidence. Bamba murido rawna na ci lol nak ci la Moussa moom. Euh, jinne yi di ko feeñu maanaam bi ko sëñ bi waxee loolu ñaareelu guddi gi rek bi mu tëddee ba tëj néegam rek ki la ko jinne ji tàpp tàppal ci tànkam mu yeewu ñu ne ko dañuy waxtaan seeg yow ngay nelaw yow bu ñuy waxtaan yow ngay nelaw ñun nan la ñuy mën a wax waxtaanee ak yow léegi nag ci saase rek la jinne yi daal di nekk nag ak musaa xaritam mbooleem li mu soxlawoo rek foofa ñoom ñoo ko fay indil li muy lekk ak lépp ñoo ko jinne yi ñoo ko indil ci barab boobu mu ne ma nag ci jamono jooju génn na sëñ Touba onze fois yu tegaloo waaye nag nee na booba jamono gént la woon waaye léegi doonatul génn nag léegi day gis sañ bi jaxaral ku woote gis présence ummanti doon xaadim rasool moom Moussa nee teg ko suñ kanam pizza moo ci nekk ñu tracé ko ci digg àll bi nag laa wax xam nga pizza buñ servir Thiès du jaaxal kenn waaye pizza ca digg àll ba ca ilbat foo xam ne mel moom képp képp moo fa nekk ak ñamaan doon ku yàlla bind new fa mu daal di tracé pizza bi ñuy lekk waa ji ma dendal nag kenn kan ca waañ wa di di yëngal moom kooku moo ne ma pizza yi ñuy lekk de ñun ñaar ñoo fi nekk lekk waaye am na ay morceaux yu manqué. daa mel ni ñun bu ñu jëlee beneen morceau am na ñeneen ñu fi ne di jël yeneen morceau léegi nag affaire bi daam li ñu jaaxal waaye ñun xamagul li xew ñu dem ba ca kanam Moussa jógewaat fee ni du ngeen togg reer ñu ne ko ah kay mu génne yàpp ak macaron ak li ci war a ànd lépp joxaat Baay mu togg reer. bin bin demee ba reer pare nag moom mu jógee fa mu newoon nag. fa fa dénki tubaab ya ne ca ca seen base ba ñëw nag ci néeg bi ñu dalal bi mu agsee mu ñu li mu njëkk a wax rek mooy moi je connais Cheikh Bamba sëñ Tuubaa la ma ne ko yow ma mbir mi bett ñu lool. te ñun booba danoo bëggoon a nëbbatu rek ba fanaan ci barabu sëñ tubaab bi jàng fi xasida ndax ba fa sëñ bi jógee ak léegi tubaab yee fi doon nekk nit mus faa fanaan man nag ma ne ñun dañuy takk suñ fit dem toog fa jàng xasida yi sëñ tubaab ñun ndax comme gental nañ ko rek la ko xañ moo nu ko war a jox ñun loolu moo fa yóbbu woon ñu moom booba ca booba jamono léegi nag ni nuy waxee noonu nag bi ma nee je connais Cheikh Bamba ma ne ko kii mu ne ma gént naa Cheikh Bamba onze fois yoo xam ni euh, guddi gu njëkk gii nga xam ni moom laa ko njëkk a gis mu ne ma ñu ne fii jotewu ñoo geew dara booboo ci jiitu waaye léegi nag géntatuma Cheikh Bamba ndax ci ñaareelu guddi gi nga xam ne Moussa tëdd na ba guddi jinne yi tàpp tàppal ko ci tànkam mu yeewu ñu ni ko danoo ñëw di waxtaan seeg yow te bu ñuy waxtaan seeg yow ngay nelaw dun mën a waxtaan ak yow lani ma boobee ba tey ji lépp loo xam ne soxla naa ko ñoo ma ko indil fii ni ma yéen nag ba ngeen di libre Libreville la ma jinee waxoon ni ñetti taalibe sëñ Tuubaa ña nga jógee Libreville 819 kilomètres mu ne ma ñetti taalibe ña ngi fa jógee li ngeen doon lekk lépp ñoo ko fi indi woon ñoo ma ko joxoon ni bu ngeen ñëwee ma jox leen ko waaw moom nag mu ne ma booba jamono nag laa doon gént sëñ waaye léegi gént tuma bi léegi jaxran laa koy gis mu ni ma dama koy gis muy dox ci kaw ndox mi léeg-léeg mu tollu fële tàllama loxo ni ma Moussa mu le nee na léeg-léeg léeg-léeg mu jàll ba benn bis rek daa ñëw rek mel ni ku ko dikk ginnaaw rek bi muy wëlbatiku rek mu dóor ko tànkam ni ko demal julli ma ñaar rakk fee mooy fa sëñ ba sampoon bantame xam nga ku yittewoo ab jullikaayam bu mu sampoon bantam ca maayom ba ca 1895 ba tey jii mu di ko yittewoo yow nga toog. bëgg net li sëñ Touba comme sàmmoor yi day ñusul ko Gabon wala ñeneen mu melni dal day ko fi jaaroon ba jall mu ne ma yow yeen de degg na degg na Sénégal da ngeen fa wutu param ni ci ngeen sul sëñ bi mu ne ma ku deewul nu ngeen ko sulé ki bis bu ne ma gis ko fi na nan ngeen ko mëna sulé suulee Touba yéen mun ma ki ba toogee sax mu fekk la fi. océan bële ku ñu fa relance. ca Gabon nga xam ne doo Xaadim bu ko defé nag kon motax mouride ci seen bop nañ folli seenum xel teg feet am ak dogu jëme ko sëñ Touba sëñ Touba kafaaniyal baaxi mamaata sarmada wa bi baqay yasuru ahmada la wax loolu nag bu fekkee nit ki gëmu ko nag kon moom du mën a xam nekk gi sëñ bi nekk kooko moom kon ëpp na ci moom sëñ bi di ko feeñu wala mu koy gis wala muy gis lu bokk ci bi waaye ki ko xis gëm nag fulli am xel fab ak bëgg teg ak yëg-yëg kooko moom lu ne mën na koo gis sëñ bi bu ko defee murit boobu ñun mooy murit bi nga xam ne ñun moom lañ jébaal Moussa moom nag ba mu nekkee ca barab booba ca Maayomba ba bisu màggal ga man maa ngi nekk Libreville man damaa jaayantoon ak sëñ Touba di màggalee Gabon ndax Gabon man maay berndeel fii nag dañ may berndeel. Gabon nag ni ñuy berndeelee dama am benn kii boo xam ni benn slogan boo xam mi ngi tudd wan murid one chicken mooy murid bu ne rek joxe benn ginaar. nga xam damay topp dëkk bi ba mu daj murit bu ne ci dëkk bi rek dina ma jox genn ginaar ndax xam nga lu tax li dalee ci ginaar ba ko digle te ginaar a jàpp ne man leen nag àggaguñ màggal ga waaye murit bu ne na warloog man ak ginaar nga xam ne maanaam liñ may jox ci ay ginaar ay plan emporté laa koy def di yóbbu ci prison yeeg di séddale ci mbedd yeeg lépp buñ ko defaree ba noppi ak mbooloom daayira xasida bi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey boobu. bu ko defee nag kon kon loolu lu yéeme la musaa woo ma nag ni ma mbeng ma ni ko faal mun ma mais je me sens seul ici ah damaa wéet fi ma ne de ma ne ko waaw foofu ne maa yomb de daa weet moom yow sa il boobu daa wéet de mun ma moo waxuma boobu jinne yi ma fi doon wéet li ñoom ñoo màggali Touba. alxames la ñuy ñibbisi fii ba alxames ña nga Touba. màggal la wote du ambiance borom safar xamuñu sa morom khadim Rasul. dal ni ma nag na ngeen gol ndax gis nga man na am bu ngeen fi ñëwaat du ngeen ma fekk loolu lepp mu wax mako fimne ni ka fa nek ñu ko mohammed ab pelup Cameroun la bo xamni histoire bu yéme la am bo xamni xajul won ci waxtani sax ngir ma man ko wax ndax mom ma nga nekkon Cameroun ci dëkk bu ñu wax Ngaaw Ndeere ci frontière Cameroun ak nigeria da guddi ñu ne ko asaman si ak leer gu sun fekk ñun suñu borom mooy ñew nee bimu ne ci suuf si rek tay ji barab booba moy seen jumaay seen fa fa leer ga daan woon guddi gi nag leer gi fakk ci kaw asaman si bimu mu ne taayi rek seigne touba génn ci jëmam ji nee ci la njëkk a gis sëñ mom mooy suñ confidence bamba murito na alliance ku woote gis présence ummanti doon xaadim rasool daal ni ma nag na ngeen góorgóorlu ndax gis nga mën naa am bu ngeen fi ñëwaat du ngeen ma fekk loolu lépp mu wax ma ko fi mu ne nii ka fa nekk ñu naan ko Mohamed ab pëlub Cameroun la boo xam histoire bu yéme la am bo xamni xajul won ci waxtan sax ngir ma man ko wax ndax mom ma nga nekkon Cameroun ci dekk bu ñu wax Ngaaw ndere ci frontière u Cameroun ak nigeria nee da daa guddi ñu ne ko asamaan si ak leer gu reuy fekk yi ñun sun borom mooy ñew nee bimu bi mu ne taayu ci suuf si rek tay ji barab booba moy sen jumaa yi seen jumaa yi dëkk fa fa leer ga daan won nee na ñaareelu guddi gi nak leer gi fakk ci kaw asamaan si bimu mu ne taayi rek sëñ touba genn ci jëmmam ji nee ci la ñëk a gis touba mom mohammed waye waaye lolu mat na 13 ans ci tey bis bi ma koy wax mu ne ma nag loolu musuma gis nit ku ma ko mën a waxal li tax ma leen koy wax yéen li ngeen di nooki doof ñëw ci àll bi toog naan fii la sëñ bi ne woon ak fii ni mu amee risque ak ni ko nit ñi ragale nee na loolu tax ma di leen nettali histoire bi moom moomee moom moomee tey jii fii ne moo ne ca barab ba mooy mooy mooy Mouhamed moomu waaye Mouhamed moomu moom it daa tëdd guddi foofee ca barab boobe sëñ Tuubaa feeñu ko wax ko ni ko Mouhamed sa soxna si daa jël weer lay am. waaye bu tuddee ci sama tur ñaan Ahmadou ci ma koy tudde xam nga bi ma njëkkoon a wax mooy ki ko tuddee ci ki mu ko tuddee ci xaadim rasul nga xam ne sëñ bi ci dara jaam yooyu ak noonu muy doxee ak tolluwaay xaadim rasul jenn jamono la ci moom Ahmadou di jenn jamono ci moom. Mamadou Bamba di jenn jamono ci moom nga xam ne benn bu ci ne ab période la boo xam ne ca la sëñ Touba tollu bu ko defee nag kon loolu mu doon loo xam ni lu mu di war a xam la ngir armé woo ko ngir xam ni sëñ bee ngi fi mën ngaa daje moom Tiwaawan fii boo tourné Thiès mën na la faa ni muy fekkee ñëpp nag nim ni woon nag poroxaan poroxaan ku ni fa jang ma fekk la fa naan waa Kaolack xit da ngay a nekk ci diggante diggante nday ak bay ne man naan leen mom da fay jaar kon nonu lay ci es gi nak di ñëwé ñëwee diko démé fu ne bu ko défé loolu fekke mouride armé nañ ko dara du jomb ci ñom waye fekke nak ñun dañu japp ni sëñ Tuubaa nak ab histoire la bu ñuy net lu muy ko fi jaaroon ba wéy nak bobu man bokkuma ci sëñ bi mat a bokk daal mooy sëñ bi nga xam ne du fi jóge ba faw sag wàllu raw na ambulance sag dégg raw na fréquence sëñ ma doonoon sa résidence surveillé ci Xaadim Rasuul bi nga xam ne du fi jóge ba faw wa bi baqay yasuru ahmada des gi mu fi des daal mooy mégum yonent bi sallallahu alayhi wa yenen bi moy sa reference Bamba amo defet yow bayla revanche Bamba santati nañ la sa souciance jere jeuf khadim Rasool manam nit ki bo armé wo jëm seigne touba na nga xam seytaane amatu la kenn problème yow la amal problème ñom nak seytaane tey jii fi mu ne ci langage su jamono ji da ngay dégg nit ñi di wax naan euh, euh, baat bi ñuy wax ay lobby lobby lobby maçonnique nangam nangam nangam nangam gi nga yooyu yëpp du dara lu dul bu deen seytaane ñoom ñu koy tudde ay Lucifer rek nangam lu ne ñu di koox waaye xam nga li xew ba xew mooy seytaane ma dëkkoon sëñ fii ci jeewal ba tax mu naan ko eesa minallahu inda jeewali iblisa ne jël ba mu ko daanoon foofee ba muy tàggoog mom ndiarem dani ko sama lima yor lepp ci sa kër gi la koy xëpp mu ne ko ci sama xepp li dina la ko xepp mu ne ko nag waaye man sax duma ci waxante ak yow ndax léegi ma fayu ndax léegi nga dem bo demee sa mouride yi sa xas day nga fi ba dina la ci wuutu jax-jaxal seen xol ñu diko ko foye ba duñ ko mëna jariño jariñoo saytaane nak bu am passé señ bi dañ ko sama sadikh yi do leen manal dara kon ki ci bëgg mucc da ngay fexé bu bok ci cadre yi bu boobaa yow jël ba ko sëñ bi daanoon day doon sa victoire dootu la ñemee bu la séenee sax da ragal waaye nag soo fi génnee sa bopp nag bokk ci ñiy déng déng nag luñ la wax nga bokk ko wutal logique yow na la leen yow saytaane ci sa dënn bi ci lañ koy teggee sëñ sëñ Tuubaa daanalul saytaane daanalul saytaane murit bu amul Pastef bi am Pastef la ko daanal kooku moom moom moom na xam boppam rek te la ko may Pastef mu di ko feetali fu mu toll muy muy bëgg sëñ chance Bamba weddi laa doy na ñàkk chance Sëñ Bamba amoo morom doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool cey sëriñ Tuubaa am benn distance tubaab ya def nañ par séquence ñoom ñépp toog di assistance ngir bëgg la Xaadimu Rasuul sa mbir de xel mënu ko science yow Xaadimu Rasuul